repéram xalaat na ni moom mën na jël ndam si mbir mi jëm man tam xalaat naa ni mën naa jël ndam dama jàpp ni peut-être man sama candidature moo gën a moo gën a dëgër c'est normal ah, man boo seetee ba si biir loolu laa jàpp loolu laa jàpp Seydou suñu mag la waaye xam nga comme ni ma ko waxee si tubaab rek ne ko euh, ici le critère c'est pas la légitimité encore que en politique kii mujjee ñëw ki njëkk ñëw ki gën a yàgg ki gën a yees ñoom ñëpp ñoo yem dignité en politique loolu ku xam politique ku xam politique xam ne noonu lay demee waaye ñun du légitimité la ñuy wax ce dont on parle éligibilité c'est-à-dire entendu sous le sens que kan moo ëpp chance pour jël Médina ndax kan mbir mi léegi nataal la bu doon bu njëkk ba dañ daan élire conseil municipal ñu dajaloo waxtaan tànn kenn bu doon loolu amul benn problème waaye bi nga xamee ni dañuy def suffrage direct nga xam na dal nit ki la ñuy teg population yi tànn nee naa sama mag nag ne ko attention ngir am na bu ñu juum parce que bu ñu juumee ñu ñëpp la ñuy sàq defe naa ni aujourd'hui du Cheikh Ba mooy wax c'est une demande au niveau de la Médina pour que je vienne participer à ces joutes électorales donc loolu moo fi ne loolu moo fi ne donc loolu moo tax ma soobu te incha allahu sama nit ñu baax ñi ma àndal bu ñu àndeex ma ñu dëgër gëm lu ñu def incha allahu lu ñu am dinañ ñu ko bëgg.